صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر xamante nak nag mooy bantum njalabaan tey jii nag ñu jug ci li nga xamante ne mooy màggal gi daal di ñëw rek nemmeeku si ñi nga xamante ne jaay ngir xam solo si ak lan moo tax nit ñi taamu ko. tey jii ñu ñëw nemmeeku si li nga xamante ne solo su perub njalabaan ñu gis ne que ci biir màggal Touba bi dañuy gis ne que day nekk loo xam nit ñi dañ koo taamu lu bari ñu ñëwoon rek ngir laaj leen euh, naka ngeen ciy demee ak euh, lan moo tax nit ñi taamu ko. waaw njalabaan de moom bant la boo xam ne ku tedd gi Xaadimu Rasuul si Bamba da koo fonkoon lool ba dénkoon ko ki wax maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu Mouride ba doo demee ca biir barabam ba fan ko denc bant bàng moo tax it euh, bant bu am solo lool daanaka ñaan gaay la koo xam ne ma naa loo ci ñaan yàlla mën na koo nangu ndax lu jóge woon ci sëriñ bu mag bi la dénk ko maam Cheikh mu Fall ba moo tax doo gisee Baye Fall yi ñu takk course jaraman lalu mau wala nit ñi nak fonk nañ ko fonk Mau xamne ne mako wala moy bant bi bant bi nak bant bu am solo la. señ bi na nga def. ça va yaa ngi jàmm baax baax. tur bi naka la. mam bamba la mam bamba. mam bamba tay ji ñu gis la nga ñew ci magal gi waye li nga sol ju lool muy bantum njalabaan yi nga xamantene ku la gis mom lay ñëk remarquer lan mo waral nga tan li nga xamantene moy mooy yi. waaw bantum bi. Danaga mam soxna jaaru buso manam modon manam takayam ndax se mam legi comme ça ndey lu ñu xewal léegi ay or ay ay takay yi ni jamono yooyu non manam ñom modon sen takay manam mam se rafal tamit dara mo lan takayam tamit te kursi ban manam dafa am secret yu nekk maanaam ay cat walum cat du lo mënal dara te manam kursi père bu nekk amul mam lu muy suñu borom dana gana goor manam danaka manam ñu jëriñ gaay manam pour japsi, wara panam pur aral mais danaka manam li galalya tevda yi manam galalya cial la am ñom jaga par manam ngi dikay aro liyo dana galak, barik burung tuba burung me burung mam serafal bant bo nek jala banla la manam mako sampon mam na jaro buso manam bi nga xamantene mam mam mam mam mamor mam mam mam danaka mo mom danaka duko bëggoon loolu barki borom tuba daan dox ci ay ndigeelam bi nga demee ba xam ne manam amna benn pël bo xam ne mo ko daan jox ay soow manam mais sa yu dañ ñëw di jël soow di jël sool di jël sool di yobbu ba mu gi daan mu ko jox ba benn bis mu dajala bant banam yi mu yoroon yëpp jamono dafa séron nak mu dajala bant njalabaanam banam jox ko pël bi ni ko téega di jox soow ba sama lekkat mat bu méttee mana manam nga jël ban ya ko mom koy jox non ba benn bis yep mat barki borom Touba mu matee léegi pël bi nekk léegi maanaam dama bëgg nga woon ma sa borom kër bu ko yóbbee si borom këram léegi indaale leket soow indaale njalabaani daanaka di nga xamal ni que ba xam kii li mu la daan jox yow la jox mun ko waaw ma la ko daan jox si heure bu ko soobee mu jox ko ma suukar ba mu saf naan ko barki borom Touba ci la nga xamal nag maanaam léegi mu nga jël takaay léegi yaa ko moom lew na la maanaam boobu nag maam soxna ma ko daan takk ci la nga koy royee barki borom Touba mu nekk gàllaaj nag ñun murit mooy sunu gàllaaj waaw Baye Fall moom ku ko xam-xam ne baaxoo na njalabaan moo tax ñu koy tagg si nañuy tuddee turu yàlla wi waaw ndax tey jii nii musicien bi wala keneen nax keneen moom mu ngi takk seenam di si fierté wul si am mbégte ñun suñu njalabaan yi nañu am di ko takk pour di si tudd yàlla bantu njalabaan bi am na ay lu yoo xam ne ay tawat yu bari sax mën na ko feebar comme ay biir yu metti nii boo jëlee bantu njalabaan original nga def ko si ndox nii boo ko naanee mën na am ay feebar yu muy sawat yu muy saafara si yow boo koy tagg tamit ay wax ay doxu ay guddeex ay nitu guddeex yooyu noonu yëpp lu lay aar daal luy aar Baye Fall la. Njalabaan ba ñu ba ñu ba ñu que ni Cheikh Ibra loolu loolu moom mooy loo xam ne moom moo bind sax Cheikh Ibra si boppam moom moo bind kéemtaanu Njalabaan nee na nee na nee na baatinam bu bëri da ko da ko dënk si si ni nga koy gisee nii yaa gis mu nekk bant waaye baatin bu bëri da ko si dënk. lolo tax ñun bañ ko xamé geussu ci Cheikh Ibra lu ci lañu tekk découvrir que ni li lu am lu am ñëriñ la lolo tax ñukoy sol yag na nak ci ñun parce que bañu bañu jëlé yoonu mouridisme jël yoonu voix wu parce que voix wu mouridisme mëno ko jël tank tank découvrir lo Cheikh Ibra tant soit pour lu ñu découvrir ci mom ci lañu xamé ni vertu vertu ñalabaani yi na trop lolo tax ñukoy tak day bañ sobé la preuve ñun sa ñu ko summee dañ koy sorti parfum pour muy xéñ sa su ne waaw bëggul sobe mën nañ ko jappé comme téré alcorane Njalabaan bi ñun dañ ko jàppee téere alxuraan en fait. waaw suñu téere alxuraan. xam nga boo ko bant bi léeg-léeg day ñuul léeg-léeg mu doon mboq ak boole mboq ñuul bant bi bokkut ak reen bi reen bi reen bi mooy ñuul kurum bant bi tam day day boole weex eh, ak ak ñuul ñaar ñaar ñaar ñaar ñaari kii daal waaye Njalabaan daal loolu mën la joxoon solo si bant bu yàgg la boo xamante ne moom ca jamono yi mag ñu mag ñu tàddi ñi la bant bu ni ñuy taamu daal bant bu baax a baax a baax la ba léegi moom du xewi daal moo guraayam daal luñ luñ mës a daal suñu borom moo ci def moo ci def ak barkeel daal. bu ñu sukkandikoo nag ci li nga xamante ne moom la ñu ñi nga xamante ne ñoo ko taamu wax jàpp nañu ne bantub njalabaan dafa nekk lu nga xamante ne solo yi kenn mënu koo natt. maam Cheikh Ibrahima Fall bokk na ci li nga xam ne moom la gënoon a taamu ki nga xamante ne it moom mooy euh, maam Jaara Buso moom it euh, bokk na ci li nga xamante ne moo nekkoon ay bijoux wam ñu ñii di sol oor ñël di sol jamaa moom jàllabaan moo nekkoon li nga xamante ne mooy bijou bu nga xam ne moom lay takk bu ko defee rek euh, dañu laan di jox rek beneen euh, dig daje si beneen reportage salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar